te génn kër mbaa mu génnum réew ni bis bi ni mel looloo e dina génn kër mbaa mu génnum réew ni bis bi ni mel looloo ñu teral gëm dolli muñ bi ñu dese loolu mooy li gën ci ñun ndax moo nu bal na la bilay bal na la man man de bal na la ci loo yëg ak loo yëgul kon daal yàlla mu di buur yumnu an yutruwa bayru sadadi bi xayri seere malaka بقدتي هل ينو الجسر وخير سدتي بغير زين فقطا بالمدد أما كل الذي تسير الأمدي المالك المكرم المتاجي هذا سيد من هنا مدتي فجا بما يبلغ خير سدتي هذا سعيد بالقران مدتي فجا بما يبلغ خير سدتي هذا سعيد بالقران مدتي فجا بما يبلغ خير سدتي وهب لنا مكارم الاخلاق ما تراه بلا صفات asalaamaaleykum kër Yaay Ja Agro asalaamaaleykum Riyad ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen nuyu ci turu daayira bi ñuy waa kër Serigne Fallou di waa Makarimal Akhlaq tey madame Gueye ñoo amoon mbégte ñëw di la nuyu si di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax nag yàgg laa dégg bëgg a ñëw ci yow te amul woon fi ñu jaar mën naa la nit ñi ñëpp samay doom lañu maa leen njabootu ndax feesu daayira bi di suñu kër waaye daanaka suñu kër la ndax ñoom ñëpp fa la ñuy defe seen réunion fa la ñuy waxtaanee fa la ñuy defe seen lépp macha allah ma leen ciy sant ñoom ñëpp di leen ci gërëm ah ba ñu toogee nag waxtaan ne seen daara bëgg nañoo waaw. ñu nekk nag euh, waa kër Serigne Fallou bëgg Serigne Fallou lool nag ba jeex ci tàkk di ay njabootu Sadibou Touré ndax daayira bi Sadibou Touré moo ko sosoon te Sadibou Touré xam naa ne yàggu leen waaye jot nga koo gis. ndax àndoon nañu ci benn safar boo xamante ne nii ñu gunge Modou Gueye tase ca safar ga taali boo nga fa ba nga jotoon ko faa jox sa ay xéewal yàlla dogal na safar ga bañ ko jógee matul cinq jours saadi bu wàcc liggéey waaw incha xam nga kon yow bàyyi nga saadi bu xel léegi na ñoom itamit ñu ne dañuy mottale nag ñoom seen kóllëre ak saadi bu ak yow dañuy jël seen daayira bi jël daara ji dafa bàjjanu daara comme daara ma wasaalik boo duggee mooy baayu daara ja yow mii yaay ndeyu yaay baayu daara yi makaari loolu moo indi seen tànk yi tey ñu waxtaanoon ci nag ñëw ci man waxtaane koog man ma rafet rafetlu ko loolu bég ci lool ni leen loolu ma dem Guèye di ko bañ soo leen toogoon ci woo ko téléphone ba wax ko ko dina ci bég ndax moom Serigne Fall rek moo la ci xolam waxuma la na ngeen jóg ak seen tànk ba egg ci moom ñëw wax ko loolu mbégte kese la ciy am wax dëgg yàlla loolu moo leen bàyyi leen ma njëkk leen a ubbi yoon ngeen mën a jàll wax ak madame Gueye ndax lii mbégte la ci ñëpp buñ ko defoon tey rek mu neex lool ci yow ndax bëgg ñi bëgg ñu def leen bàjjanu daara bari waaye yow la yàlla dogal tey bii yaay bàjjan yaay yaay yaay lépp kon nag te nangul ngañ ko alhamdulilah rabbil ñu ngi sant di la gërëm bu baax salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital si nuyoo beeg ziar bi xalif général kulu murid sëñ Muntaxa Basiru di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér ba lépp lu yéeneem rek ci liggéey bi ak liggéey ko maam sëñ Tuuba suñ borom defal ko lu koy ak jotam di ko ñaanal xalif général ku lu Baay Faal Moustapha Amdi Mende Faal moom it suñ borom kàttanal ko defal ko tawfeex may ko fan gudd ba lépp lu yéeneem ci liggéey bi rek mu defee ko nu ko bëggee taanu koog ñëpp di ñaanal suñ bund sëñ di sëñ Abdou Karim Mbàkke di ko ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam ba mission bi nii di makaarimal axlaa mu yeggali ko defee ko nu mu ko bëggee tànn koog ñëpp di ñaanal jawriñu liggéey bi di jawriñ Xaarim Jaase moom nga xam ne moom la sëriñ bi jiital suñu kanam fii nii si jiital caaroy kaw mu nekk jawriñu liggéey bi di taxaw liggéey bi di ziar tamit di ko jox wàccuwaayam di ziar ñu fi fekk ñëpp di leen jox seen wàccuwaay ak sama kilifa gi taxaw di sëñ Tumaani ñoom tamit ñu ngi koy jox wàccuwaayam ak soxna suñu yaay booy bi nga xam ne soxna buri mi nga xam ne mooñ fi indi ginnaaw jotaay gii nii suñu borom dogal na ci ay loxoom la jaar kon ñu ngi koy sant bu baax di ko delloo wàcc waayam comme ni mu ko waxee rek daanaka ñun daayral goo xam ne ñu ngi yëngu fii nii si jida caare kaw di daayra goo xam ne daayra sëñ Abdou Karim Mbacke la ñoo nekk jida caare kaw di lii di wax ni tamit fii suñu kër la ndax kilifa gox gii nii daanaka loxo musul jug ci liggéey bi ndax muy monsieur le maire Modou moom saasu ne même bu ñu bu jëm yi même bu ñu gisante toog sax daanaka loxo mu ngi ñëw ci liggéey mu taxaw bu baax loolu moom ñu ngi leen koy seedeel fii nii rawatina nag leneen loo xam ne sax lu bokkul ak liggéey bi mu jëm ci jeunesse bi gis nañ ci taxawaayam goo xam ne nii am na solo lool te saa ne ñun ñii sax bokk na ci jëm yoo xam ne dañuy bénéficier wu si offre yi nga xam ne da defal jeunesse ñu ngi koy sant bu baax nag di ko di ko ñaanal yan gi nga xam ne suñu borom moo ko teg mu oyof ci moom ba lépp loo xam ne rek yéeneem la si commune bi mu defee ko nu mu ko bëggee ànd koog ñëpp ak soxnaam ak maanaam militant yeeg yëpp ñu nga leen koy ñaanal ba ñëwee seeti ko waxtaan ak moom moom xelam dajul fenn fu fii mu daal ñuy xelal nañu fexe leen ba toog ak madame la maire ndax gis na liggéey gi muy liggéey ci gox bi ku am yéene la ci gox bi ba looloo sababam waaleykum salaam looloo sababam mu ya mu digal ñu tey ñu ñëw seet la te it suñu daara gi fas yéene nañ bu noppee lépp luy alxuraan lépp luy njàngum alxuraan daal ñu ko fay jàngale ak xasida yi ak lépp loo xam ne rek maanaam diine la ñu ko fay ñu ko fay jàngale bëgg nañ tamit comme dimbali leen si liggéey bi ndax maanaam soxla yi bari na te benn loxo rek mënu ko ñun bu ñu sañoon dañuy bokk si développeurs yi ci ci ci ci gox bi fexe ba créer loo xam ne nii maanaam du day doon loo xam ne ñëpp dañ siy bénéficier wu jaarale ko ci ci ci daayira bi maanaam ci ci misaal la jot nañoo am suñu kayit suñu kayitu GIE boo xam ne bëgg nañ incha allah bu daara ji pare ñu taxal suñu entreprise boo xam ne képp kuy liggéey ci daara ji rek maanaam dina gis boppam waaye comme que dafa guddi te yoon ñu ngi leen masawu ndax yëg nañ effort yi nga def yëpp pour mën a teewe jotaay yi nii dañuy wàcce suñu kàddu rek maanaam di tubaab bu baax. soxna si ñu ngi seer bu baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di di tàmbali nuyoo beeg seer bi suñu yaakaar tey ëllëg bi Cheikh Abdou mu suñu Fall xam naa sax du ma dugg fi fi Bamba dugg lépp ndax. daanaka am na lu bari bari lu mu développé waaye damay am ay leeral gàtt yu ma def rek ak ay cant ak yoo xam ni ci sunu digganteeg mu président moom moom Mamadou Gueye ak tam suñu diggante ak fas fas yéene ji fas yéene fasante gi ko ndax sunu daayira bi moo tudd Makaarimal Axlaaq sëñ Abdou Karim Mbàkke mu sëñ Fallu moo ko taxawal biñ koy taxawal màggalu Tuubaa ak màggal Kazu Rajab ñaari yoon ci at mi dañ koy yëngu di dem Touba di gaare ay oto ay bus mbooloo di ci dugg di dem di màggal comme ni ko sëñ bi bëggee di ñibbisiwaat bu yàlla suñu borom dogalee président Mamadou Gueye yàlla jox ko ndombo tànk li mu ko jox tànk avant boobu sax lañ commencé am moom ay relation ay relation yi rafet mu nekk jëmm ju baax joo xam ne jëmm ju yaatu te yaakaar naa ku ku ku miin kër sëñ bi Karim miin nga ko moom ndax du fa mën naa ne weer wu ne daanaka bo nit ñi bëri ko tànk sëñ bi doo fa dem mukk te doo fa daje ba sax dem ba sëriñ bi ne ko léegi yow sama doom nga kon am na cër ca sëriñ nekk nag jëmm ju baax ju yaatu daanaka fasante ñun kóllëre màggal màggal Kazu bi weesu dañoo toog bi ñu suba la màggal boobu ñun ñii ak yenn jëmm ñu ngi dem daral di jënd nag mu woo ma téléphone ne ma maa ngi lay orange ne di sama participation ci màggal bi loolu mu nekk lu rëy loo xam te pourtant demuñ sax ci moom ne ko dañoo bëgg a jàppale ci màggal waaye dafa toog rek ci ak mbaaxam li jënd sama numéro woo ma téléphone ànd ak Fallou Niang Galas Niang woo ma ne ma maa ngi lay dugalal Orange Money sama participation ci mag ci màggal a Rajab bi mu nekk ñu rëy loo xam te du c'est la première fois mu def da daanaka di taxaw daayira bi lépp lu ñu am buñ ko buñ ko ko yëgalee mu def ci lu mu mën ko kooku ñu ngi sant bu baax waaye yow nag yàlla suñu borom dafa dogal ci ci mbaaxu sox mbaaxu soxna si suñu relation ak ak ndax doomam ci ci liggéey bi la bokk xamal nañu kat bu ngeen fexee ba xamanteeg madame madame le maire madame Guèye moom it jëmm ju baax la joo xam ne ku ku bëgg liggéey la teet ku bëgg sëriñ bi la teet ku baax a baax la koo xam ne su ngeen fasanteeg moom kóllëre moom it yaakaar naa seen ànd dina gën a rafet ndax yaakaar naa ku mel ni président Mamadou Guèye ku fas fasanteeg moom kóllëre war war nga tam fasanteeg moom kóllëre ak njabootam gépp tamit ndax fi mu ne Moussa ne ma ne ma dem te li naan fecc li tam bu neexee dajaa jàpp ca wàll kon duñ fasante moom couleur day doon lu rafet tamit ñu ñu fasante yow couleur ko tam da ciy gën a dégg si tam daanaka lépp moo ko dox bu ngeen fexee ba gisante ak moom kat yaakaar naa seen seen ànd dana gën dana gën a rafet moo tax tey jii bi ma ko waxee man ma bàyyi lépp lu ma jàppoon da daal yaakaar naa mbooloo mi ko sax bu ñu jugoon duñ xat fii. daanaka quelque jëm rek nan nañ ñëw mën a daje yow ñu di la sant baax ci. jàppandal gi nga def xam nañu sax xatoon nga loolu waaye fexe nga fexe ba jaayante ba teew ngir bëgg daje ñun kon loolu ñu koy ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax moom daal mbooloo maa ngi nii am na am nañ daara joo xam ne ma ma nga ca gox ba daanaka ci construction la toll te daara ja la fa nekk lépp kenn dafa ko fi ñi ñi nga seen fii rek ñoo ko fa def daanaka ñu ngi toll sax ci courage di ko waaj a kuule waaye lépp lu fa dem rek mboo jëmm ñi nga siin ni ñoo rek ñoo fi nekk te di fa jàngale alxuraan bëgg nañ ko def internat ñu fay jàngale alxuraan ak fas di Sëriñ Tuubaa ak wàllu xam-xam ak lépp loo xam ne luy tax jullit ak jullitam gën a rafet gën a dëgër loolu dong lañ lañ lañ koy doyee te ay jamono ay tabax la woon yoo xam ne ay def ko te ñaawteef ñoo fa nekkoon daan ko fa def ñu ko dox di ko dox ba musala ma ko suñu loxo ñu dox ci ba am kayit yi nekkat liñ bëgg mooy def ko daara ba dem yóbbu yóbbu ko Touba won ko sëriñ bi sëriñ bi defal ñu ci ñaan moo tax ñu la ci bu baax lépp loo xam ne waaye jëf na ko ci rek sëñ Abdou Karim Mbacke dina ko dégg ndax nii nga toog yow di wax nga ñuy dégg kat mën bu nit ci dafa ñaan kon nag ñu ngi la ci woo bu baax a baax di façon di façon teg yow encore coloré di la ne ñun bis ni tey ñu ñu ngi façon teg yow coloré lépp loo ne boo ñu ko yëgalee a ko def lépp luñ dugg danañ la ko yëgal incha allah kon daal ñu ngi xam naa ma gàttal di bu baax a baax a baax ci daje gi ñu daje yow di la xamal daal ñu ngi dégg bu baax suñu xol sedd na ci xamante gi ñu xamante yow donte ne sax yàgg nañ laa dégg sax mbaax yàgg nañ ko dégg ak yu baax yi ngay def waaye tey la yàlla soo ko dogal ñu gisante waaye ñu ngi ciy dégg bu baax a baax a baax xam naa kàddu dama ko dama koy tënk foofu rek ndax xaw naa guddi di bu baax a baax di sant mbooloo mi fi teew yëpp ak yu baax ñi nga àndal di di ñu ngi lay ñaanal bu baax daal suñu borom yokk say xéwal faj say aajo te président Mamadou Gueye lépp loo xam ne mission bu muy dox la yàlla ko ci yàlla jox ndam ci barke Sëñ Tuubaa kon daal loolu moo doon kàddu yi maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di tuubal sama jëwriñ ci kàddu yi may yëkkat di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen sant bu baax aussi ci njàng mi njàng mu am solo mi ngeen ci jàng di leen wax de wax dëgg yàlla jàng ngeen ko fu jaree jàng ndax fii daara la fi ngeen toog nii daara la joo xamante ni moom mii tey fii kër waajuram la moom këram la fii la dëkk tey muy loo xamante ni wax dëgg yàlla ci lii la juddu ci la yaru ci la màgg kon tey boo leen ñëwee woo ko ci lii maa ngi leen di seedeel ne dina ci ànd ak yéen ndax tey moom lii la xam loolu la ay maamam xamoon waajuram bu góor wi sànc kër gi tey xasida lañ fi mës di jàng ba bisu tey tey xasida yi ngeen di jàng nii tey sëñ Masamba maas ko njaboot sëñ Masamba gi yëpp fanaan nañ ci kër gi fii ngeen toog nii barab bii ngeen gis nii tey njaboot sëñ Masamba yëpp fanaan nañ fii muy barab boo xam ne barabu xasida la kon tey moom lii nii boo leen ko ci wooyee da ko woo ci loo xamante ni ci la juddu ci la yaru ci la màgg ci lañ ko nàmpatal ba mu toy nii mu toy kon amaana tey dina leen ci fekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag wax dëgg yàlla ci taxawaay bi ngeen am ak li ma jot a dégg ne loolu ngeen wax ne moom ngeen taxawee ci yoon bi loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax ndax suñu yëngoog suñu dalak suñu lépp sëriñ bi la te moom mii tamit léppam loolu la tey woo ngeen ko ci loo xamante ni wax dëgg yàlla mooy ak bëggam moom ay bëggam du question li mu nekk sama mag wala dara du question li ma bokk moom wala dara mais ak bëggam la damay faral di def sax saa su ma dombee ba romb fenn ñuy wax ci jumaa wala jàkk dama koy woo ci saa si mu yónnee ma xéewal gi ma dem def ko loolu moom day dundam lu jiitu sax muy dugg ci yàlla dogal muy jëflante ak euh, liggéey bii muy liggéey nii tey muy bëgg-bëgg boo xamante tamit fekk si na ci borom këram tamit muy Modou Gueye muy nit koo xamante ni wax dëgg yàlla ba ma koy xam ba léegi maa ngi ko xam ci ak taalibe maa ngi ko xam ci lu bëgg lu baax tey wax dëgg yàlla mooy ci côté boobu nag laay dalalee seen xel di bàyyi wax dëgg yàlla sëñ Tumaane continuer euh, tout tànk yi ndaw yi ngay gis fii ci kër gi yëpp xas da ñuy wayantoo kon yàlla dogal na tey woo ngeen ko ci loo xamante ni ak bëggam la kon amaana loolu du jar a soññ du jar ñu koy woo ñu koy wax naan ko lii ak lii ak lii ndax da ngeen koo woo ci li mu bëgg saa su ne damay dégg ci ay kàddoom mu ne man damay tiit su ma nit wax xamalee ne ma dama bëgg ñu nga def ci loo xamante ne day jëm ci wàllu foo wala dara nee moom bu ko déggee day tiit ndax day bëgg moom alalam saa su ne muy dem ci loo xamante ne lu neex yàlla ba tàyyi du lul jëmmam toog nii ba tàyyi xëy naa dem ci jumaa jàkka nii rek di julli xool moket yi woo ko mu ne ma demal bindal ma segu huit cent mille ma dem jënd moket yóbbu kon tooy loolu bë bëggam la ak bëggam la mi ngi nii toog te wallahi du ma ko waxal loo xamante ni tey e, lu muy dund wala lu mu gëm dem naa bi barki àjjuma bii rek bi ma jullee ci jumaa damaa julli jumaa ba pare dégg ñuy laaj ci maa ma woo ko téléphone ci saa si damaa génn ci jumaa ji rek woo ko téléphone ne ko man de dégg naa e, maa ngi ci néegu yàlla boo xam ne dañuy soxla ay ciment mu ne ma wax xoolal ñaataay doy kon tey loolu mooy bëggam waaw boo leen xëyee tamit woo ko ci loo xamante ni wax dëgg yàlla muy daara muy loo xamante ni pour nit ñi mën fee jàng alxuraan di jàng xasida di jàng xam-xam téere xam-xam yi sëñ Tuubaa bind kon tey loolu xamaana boo leen yéexee tuuti sax moomu daw fekk si leen ci leen di jaajëfal bu baax di am mbégte lool ci seen teewaay fii ci barab bi waaw. Euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm di sant euh, waa kuréel gi euh, yaakaar naa fi ma toog kanam yu bari miin naa leen ci jidda caaray kaw rawatina jëwriñ bi jël kàddu gi léegi rawatina fàllu mee njëkk a jël kàddu bi sama jarbaat juddoo ci sama loxo yi ñu bokk benn koñ ba ni mu toxoo caaroy ñëw foofu muy xale bu am yar boo am diine waaw kon nag euh, dafa am lu xaarim wax lu am solo sii euh, ngeen ñëw tey ak ndaw sii ngeen seet soxna sii ngeen seet si tey man dafa am nu ma ko tuddee li tax maam am ma ko tuddee dafa am ay kàddu man bu ma koy woowee bu ko ñëpp wutalee tur man dama am benn tur boo xam ne spécial moom laa koy woowee ndaw si ngeen seet si tey ne da ngeen koy def ndayu daara weesu na ndey daara parce que man dama koy woowee premier première dame Djidda Thiaroye Kaw parce que première dame mooy def li muy def premier dame mooy jëf li muy def première dame mooy wàcc ci biir terrain bi wàcc ci askan bi wàcc ci gox bi lépp lu mu am di bokk ak ñoom noobul dëgg moo ngi xam nga kan mooy noob ci liggéey sa alal moom ko ci sa biir xol nga ne du ko yóbbu banque du ma ko tabaxee ay immeuble dama koy wasaari ci julliti yàlla yi ku ne gis ci sa bopp nooba la ngi nii góor dëgg ngi nii man li tax ma naw ko li tax may ànd ak moom li tax ma ba ñëpp génn ci ñëpp topp ko moom rek damaa xam ne àjjana la jëm te damay ànd ak moom dem àjjana liggéey bu sell bi muy liggéey li muy def ci gor ñi li muy def ci doomu aadama lii xaadim wax léegi mu ngi def lu ko gën a rëy te bëggul kenn xam ko kon nag yéen wax ma ko aliment arab yi ñëw fii tey te ma xam leen bu yàgg euh, te sëriñ bi jël mbir mi teg ko seen loxo bi ma leen di xam ay tuut tànk ngeen ngeen nekk ci Djidah Thiaroye Kao di ko liggéey di ko doxal ba tey bu du woon lu ngeen gëm bu dul leen pas-pas bi ngeen ci am kon tey du yegg fii mu yegg kon nag sëñ Abdou Karim amee na leen njukkal yéen tamit delloo ngeen ko njukkal parce que ba ko tegee seen loxo ba léegi nax saaylu yéen a koy liggéey liggéey bu rafet li ngeen ko dénk nag biir naa ni di ngeen ci am lu kawe seen njort di ngeen ci am lu kawe seen njort te dina leen ci defal lu kawe seen njort dara ñoru ko lu dul doomu aadama yi dara ñoru ko lu dul lislaam dara ñor ko lu dul liggéeyal yàlla suñu borom dara ñor ko lu dul liggéeyal diine dara ñor ko lu dul jël alalam bi def ko ci nit li ma leen di ñaan di leen ko ñaan foofu laay daanelee kii man ama ndaw si moom amatuma looy wax ci moom li ma leen di ñaan fu ngeen mës a toog ci jotaay su ngeen ubbee alxuraan bu ngeen ubbee xasaayit bu leen fa jóge te fasalu leen ma madame Guèye Fatou Faye yàlla may ko wér gudd fan musal ko ci bët làmmiñ ak cet te lii mu sumb yàlla defal ko lu kawe ci njorto foofu laay daanelee sama kàddu parce que amatuma lu may wax ci moom. merci. da ngaa mën. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte bu yaatoo yaatu yaatu nag ci ñetti mbiir ndax li jagle la kontaan naa ci bu baax kontaan bi nag xëy na li ma bëgg mënu ma ko wax waaye bëgg naa Adja mi xam na saa yu ñëwee di ma yëgal dara dama naan leen man yooyu bugguma sama xaalis di ci dem mm-hmm. su ma sañoon sama xaalis buy dem ci lu neex yàlla rek lay dem mm-hmm. ndax alal bi moomuñu ko yàlla moo ñu ko dénk te dañuy bëgg di ko def fi mu bëgg moom fi nga xam ne dañ ci am ngërëmam defe naa ne am na ñetti fan mm-hmm. laa jógee barabu seen fàllu ànd ak ñoom xaadim ñi bi ñuy dem dañoo réeroo ñoom ñu jaar ni ma jaar ne bi may ñëw bay jub barab bi damaa yëg loo xamee ne mënuma ko sax wax may dugg ci biir waa ji jàkkaarloog man ne ma soxna si kaay taxawal ma taxaw mu ubbil ma porte bi ci ginnaaw dugal ma ci biir barab bi ma sant ci yàlla bu baax ñett fan lañ ci teg ngeen ñëw tey toog bi ma wax loolu mu nekk mbégte ci man maa ngi leen di gërëm te xam ne li ngeen ma jox nangu naa ko ci xol bu sedd buy di ñaan yàlla ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim jëm fu sori incha allah yal nañu yàlla jàppale ñun ñëpp ma tënk ndax waa bi dañuy bëgg commencé te xam naa ne jël nañ seen temps bu bari macha allah waaye xam naa ne dinañu amaat ay jotaay bu neexee yàlla jàpp leen ne li ngeen wax lépp dugg na sama nopp luñ ci mën rek dinañ ko jéem incha allah yal na yàlla mottali nag ndax moo yor lépp. ñun dañ koy doxalal rek amuñu fi leen lépp ci ay mbiram rek lañuy ñuy dox yàlla nañu jëmale ci yoon bi ngeen bëgg ak bi mu bëgg ak bi mu gërëm wasalaam dina génn kër mbaa mu réew ni bis bi ni mel looloo ñu teral te waaye dina génn kër mbaa mu génnum réew ni bis mi ñu mel looloo ñu tëral gëm dolli muñ bi ñu dese loolu mooy li gën ci ñun ndax moo nu teral